عد الحافى والثرى والرمل يتبعها نجم السما ونبات الأرض والمدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على حبيبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي imam Busiri rahmatullah alayhi mi ngi taxawoon ak ñun biig ci fi muy defee transition ngir tàbbi ci bunt bi nga xam ne bokk na ci bunt yi gën a gudd waaye gën a rafet ci xasida ji ndax ci lay taggee yonent sallallahu alayhi wa sallam donte yee ca topp yëpp tagg la mu tàmbalee ko ne walamtu sunnata man axi walaama ilaan ishtakat qadamaahu durra min warami wa shadda min saxabin axshaahu wa tawa taxta alxijaarati kashxan mutrahalatan mu ne man dee dama tooñ sunnaay ki nga xam ne moo daa dundal guddi ba ay tànkam néewi li mu a wax mooy mën tooñ mi ngi yem ci nga ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam nga bëgg ba noppi boo julee gee tët man sama bakkan moom man bon ndax yonentu laa ne moom laa bëgg te moom daawul nelaw guddi daanaka te man lépp luy sunnaam sama yoon newu ci wa shadda min saxabin axshaahu wa tawa taxta alxijarati kashxan mutrafa al adami man añ du ma raw du ma reer du ma njoganal ak la ca des du ma te yonent bi ma ne moom laa bëgg daf daa xiif ba dootul mën a tenir mu jël ay xeer takk ci biiram ngir mën a tenir te bu ko neexoon àdduna yëpp di ala lu li ci li ci li ci firnde mu ne wa raawadathu ljibaalu shummu min dahabin an nafsihi fa araha ayyama shamami ndax moment bi muy xiif ndax ndey Aysatu nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam eh, daan na toog ñaari fan ñetti fan dem na sax jamono ba fanweeri fan ci takkul ci kër ndox ak tàndarma rek te booba fu mu romb montagne yi te Makka ma dina montagne rek la di sàkku boo bëggee ñu nekk wurus wax ñu ñu nekk jama nga jële ñooñu mu lànk loolay dëddu moo tax mu ne wa akkada zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la tahdu ala al isr nee na lii tegtale ne dëddu àdduna mooy dafa soxla woon àdduna àdduna ñëw ci kanamam mu lànk loolay dëddu waaye ki amul bu ne dama dëddu <laughs> dafa dafa sawar dafa sawar rek dafa sawar rek waaye ki dëddu dëgg mooy ki am mooy ki am ki amul lu mu lu dëddu wa akada zuhdahu fiha daruratu waaye nag inna darurata la taadu ala lisani lor lu mu rëy rëy mënul atteindre la protection divine maanaam koo xam ne yàlla la yónni loru àdduna mënul la mënul la caalitloo mënul la caalitloo moo tax mu ne wa kayfa tad'u ila dunia daruratu man lawlaahu lam taxruj dunia min al adam nan la loru àdduna di saalitloo koo xam ne bu dul woon ak moom àdduna du am ah nan la loru àdduna di saalitloo koo xam ne budul woon ak moom àdduna du am xam nga ni ñuy firee nii ñun firiwuñu waaw firiwuñu burde pour ñu ñuy seetaan ñu xam ne firiwuñu burde li ñuy def du fur du firi mukk nde buñ doon firi eh, eh, émission bu nekk benn bayt la ñuy jël te du jeex waaye nag dañuy fexe bunt bu ne ñu jéem a tudd grande ligne yi ñu jéem a tudd jéem a tudd grande ligne yi waaw wa kayfa tad'u ila dunia daruratu man lawlaahu lam taxruju dunia min al adam ki nga xam ne bu woon ak moom àdduna du am kan la mu ne muhammadun sayidul kawnayni wa thaqalayn wa li fariqayni min urbin wa min ajam ki may wax muhammad la tudd mooy sangu ñaari nekk yi mooy sangu dégg nga nit ak jinne mooy sangu adduna ak àllaaxira mooy sangu xayb ak shahada mooy sangu arab ak kudul arab sallallahu alayhi wa sallam kan la mu ne nabiyuna laamiru naahi fala ahadun abarra fi qawli laa minhu wala naamin mooy ki nga xam ne bu digalee ndigalam rek la ñu war a topp ndax la mu digle rek a baax bu teree tereem rek la ñu war a bàyyi ndax la mu tere rek bon kenn nag gënta wax dëgg ci bu ne déedéet mbaa mu ne naam yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu mu ne déet déet la lu mu ne na waaw waaw donte wax déet lu ko jafe woon la waaw loolu la tashahudu la ahaw naam waaw way nañ euh, Zeyn al Abidin bu dul woon ashhadu an laa ilaha illa allah lépp fépp mu war waxee déet waaw la fay wax waaw la fay wax waaw kooku kan la mu ne huwa alxabibu alladi turja shafaatuhu li kulli hawlin min al ahwaali mooy ki nga xam ne waxuma la àllaxira waaye lu xew ci àdduna shafaatum lañ ci yaakaar waaw lañ ci yaakaar shafaatu yenantu muy ràmmam du àllaxira rek de fii la tàmbalee ndax kat yàllaay joxe waaye moom mooy séddale kon nag ñu ñaan ko yàlla li muy baax la yëpp mu joxal ñu ko ko mu séddale mu séddale ñu ko mu séddale ñu ko waaw kooku kan la mu ne daa ila allah dafal mustamsikuuna bihi mustamsikuuna bi hablin ghayri munfasimi mooy ki nga xam ne moo rek moo woote jëm ci yàlla li ci des yëpp moom la ñuy topp nag la mu wootee nag pour ñu jaaree ci jëm ci yàlla ku ca jàpp rek a jàpp ci buum ca jàpp rek moo jàpp ci buum gu kan la mu ne faaqa nabiyin fi xalqin wa fi xuluqin wa lam yudaanuhu fi ilmin wala karamin nga ne ko pourtant yonent yi baax nañ woote nañ mu ne waaw dëgg la waaye dañ dañ ko jotut nag waaw daf leen kawe ci ñaar daf leen kawe ci bind kawe leen ci jikko waaw bu dee ci xam-xam jegewuñu ko bu dee ci tabe seenuñu ko waaw bu dee ci xam-xam jegewuñu ko bu dee ci tabe seenuñu ko nga ne koo kan la loolu nan la mën a nekkee mu ne parce que wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al bahr aw rashfan min ad waaw ku nekk ci ñoom la nga am ab cemp la rek ca la mu am Ah, ku nekk ci moom maanaam nubuwatu moom mooy yonantu yàlla muhammad mooy jëmmi nubuwatu koo jis mu di yonantu mu am wala mu amuk risalatu xamal ne lëf ci nubuwatu ak ci risalatu lañ ko jox sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi te lañ ko ca jox kat mu ngi mel ni géej gi ci àdduna nga comp ci boole lañ leen jox yëpp tolluwul ni li nga cemp ci géej waaw aw rachon mi na diyami waaw wala taw waame nga jël fa nga daal di nga daal ci as dégg nga la nga as mooy la yonent yëpp am la ca des mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wala sax mooy la mu am yonent sax ëpp na loola waaw mu ne wa waaqifuuna ladayya inda xaddihimu min nuqtati alilmi aw min shiqlati alxakami yonentu sallallahu alayhi wa sallama eh, yonent yëpp ña nga taxaw fa moom maanaam ba ñu demee ba seen xam-xam arrêté ba ñu demee ba seen xikmatu arrêté la ñu am ci xam-xam yëpp boo ko boolee bu ngi mel ni as tomb ci xam-xam xam-xamu yonentu sallallahu alayhi la ñu am ci xikmatu yëpp boo ko boolee mi ngi mel ni benn masque ci xikmatu rasulillahi wala ci xikamu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag loolu du kéemaan lu tax mu ne fa walari tamma maanaahu wa suratuhu fu mustafa wa habiban bari un nisam koo xool rek di nga wax ne ah, rafet na de waaye budul woon ak lii koo xool di nga ne ah baax na de waaye budul woon ak lii yonentu rek moom la biram rafet bitim rafet yonentu rek moom la bind mët jikkoom mët moom la yonentu rek moom la biiram mët bitim mët moom la bindam rafet ba pare yàllaam mët foo wala di tamma maanaahu wa suratu moo tax yàlla tànn ko fu mustafaahu habiban yàlla def ko muy soppeem baari un nasami sallallahu alayhi wa sallam kookan la mu ne munazzahun an sharikin fi mahasinihi fa jawharul xusni fihi gayru munqasimi mooy ki nga xam ne eh, taar buñ ko doon séddale mu jël yëpp taar buñ ko doon séddale mu jël yëpp xam nga dañuy wax ne sidna Yusuf bu nit ñi amee dégg nga benn taar juróom-ñeent ya moo ko jël waaye boo boolee seen taar ak taaru Yusuf yëpp lëf la lu tuuti ci taaru yonent yàlla Muhammad taar yëpp rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa jawharul xusni fihi gayr munqasim gayr munqasim yonentu daal dama daatahu nasara fi nabiyihim waxkum bi ma chita madhan fihi waxtatim lu dul yàlla la boo ko ko joxee moo ko ba waaw lu dul yàlla la moo tax mu ne la baal li nasaraan yi doon wax ci yonent yàlla Isa ne yàlla gannaaw loolu nag lu dul yàlla la lu dul yàlla la jox ko ko tàggam la jox ko ko lëf la ci ni nga ko yore maanaam yàlla moo moo tëbbu yonent yàlla Muhammad li mu am yëpp ba mu des yàlla am sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne wansub ila zaatihi ma chita min sharafin wansub ila qadrihi ma chita min azami lu la neex ci xeetu tedd nga joxoñal jëmm yonent bi ne ma nga ca moom loo xam ci daraja ju màgg joxañal darajaay yonantu loo xam ci màggaay joxañal yonantu darajaam ne darajaam ëpp na ko sallallahu alayhi wa sallam lu tax mu ne fa inna fadla rasulillahi laysa lahu hadd dafa yuribu anhu naatiqun bi fami maanaam ngëneelam dafa amul dayo ba nga mën ko tudd kon loo wax rek lëf la ci ngëneelam sallallahu alayhi wa sallam ah, law li ko li mu am ci kéemaan yëpp li mu am ci mujisaat yëpp nag loolu kay loolu kay mooy wane darajaam mu ne ah law nasabat qadrahu ayatuhu izaman ah yasmuhu xiina yudaa daal di sa rimam gis nga kéemtaane bi lu ñuy bëri bëri soo ko bëggoon a méngaleeg ni yonent bi toll boo ne Muhammad rek néew jóg boo ne Muhammad rek néew jóg maanaam turam rek boo ko tuddee moo ëpp kéemtaan yi nga ko xamal yëpp sallallahu alayhi wa sallam sàkkaana jëmm ji di ñëw ak melo yi alayhi salaatu wa salaam moom dee lam yamtaxinnaa bi ma taala qulubihi xirsan alayna falam nartab walam nahimi yonentu nag sallallahu alayhi wa sallam ni mu kéemaanee ëpp na wante ni mu baaxee dafa ëppati loolooy lan mooy yonentu sallallahu alayhi wa sallam indi lu ñu dara loo xam ne mënuñ koo dégg moo tax dara sikkuñu ko dara def def la wuñu ko lépp ma leer lépp ma sant gis nga alxuraan bu ñëwoon ne subhanallah ladi asra bi nabiyihi mën na nañoo jaawale ñaari masque yi ne bi bu na yihi la daloon chrétien yi dal ñu waaye bi abdihi la wax dara moo lëndëmut dara moo jafewut lépp a leer moo tax mu ne yonent sallallahu alayhi wasallam indi lu ñu loo xam ne dafay lottuloo xel yi waaye nag lim ñu indil la de waaye moom moom lottuloo na xel yëpp moom sallallahu alayhi wasallam ayan wara fahmu maanahu fa laysa yura lil qurbi fa laysa yura fi l qurbi wal bu'di fihi ghayr munfahim fa laysa yura fi l qurbi wal bu'di fihi ghayr munfahim yonentu nag lim ñu indil lottuloowut xel yi de waaye moom nag mbindeef yëpp la xam ko jafe mbindeef yëpp la xam ko të maanaam xam ko moo të ku yàlla bind bépp mbindeef ki ko jege ci jamono ak ki ko soree ji yem ki nga xam ne moo ko jege ci yàlla ak ki ko soree ji kenn xamul ci moom dara hmm. ma ngay junñi ahmadiyatoom gi muhammadiyatoom gi nag am na luñ ca xam waaye ña ca xam sax bariwuñ te lañ ca xam bëriwut sallallahu alayhi wa sallam hmm. nga bëgg a wax ne waaw loolu boo ma ko bëggee misaalal noo ma nekk shams tadharu lil aynayni min bu'din saghiratan wa tukillu tarfa min amami mel ni jant rek ci digg njolloor waaw soo ko soo ko soree dafay dafay tuuteeg yow soo ko jegee doo ko mën a xool hmm. waaw mënant bi boo ko soree doo ko xam boo ko jegee doo ko xam sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam hmm. mu ne wa kayfa yudriku fi dunia xaqiqatahu qawmun niyaamun tasallaw anhu bil xulumi koo xam ne dégg nga caaxaan mooy li ëpp ci li la soxal nooy xamee ki nga xam ne mooy xaqiqa caaxaan mooy nelaw saggante mooy nelaw maanaam gént ya nga xam ne moo nekk ci biir caaxaan mu ngi mel ni koo xam ne nii soxlaa mooy nelaw kooku nan lay xamee yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ku soxla woo ku yonantu nan nga koy xamee te boo soxla woon yonantu rek moom kese mm-hmm. mënut a tax nga xam ko waaw nu ñuy def kon mu ne fa mablagul ilmi fiihi annahu bashar mm-hmm. waaw lu nit mën a wax daal mm-hmm. ak kumu kumu lu jaam ñi mën a wax daal mooy yàlla ko bind mbindeef la waaye bu dee mbindeef it waa nahu xayru xalqillaahi kullihim moo gën ci li yàlla bind sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama mu ne wa kullu ayin ata rusulul kiraamu biha fa innama tasalat min nuurihi bihimi bépp kéemaan nag boo dégg ne ab yonantu mos na koo indi xamal ne yonantu sallallahu alayhi wa sallama moo ko tëbb ci xaqiqatoom lëf la rek ci leer yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam lu tax mu ne fa innahu shamsu fadlin hum kawaakibuha yudhirna anwaaraha linnaasi fi zulam gis nga biddiw yi nga gis nii duñu jëmm duñ dara xam nga lan lañ hmm. dañuy refléter rek leeru jant bi jant bi bu guddee ba mu nekk ci suuf biddiw yi tiim ko mu leeral leen nga foog ni biddiw ya leer fekk jant bi la mu ne kon nag yonent yi ñooy biddiw yi yonent yàlla muhammad mooy jant bi hmm. sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam hmm. mu ne akrim bi xalqi nabiyin zanahu xuluqun bil xusni mustamilin bil bishri muttasimi ka zahri fi tërëfin wal badri fi sharafin wal baxri fi karamin wa dahri fi himami ka annahu wa fardun min jalalatihi fi askarin xiina talqaahu wa fi xachami sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yéemal tedd nga ab yonentu boo xam ne jikko ju rafet moo ko rafetal moo ko rafetal dégg nga foo ko fekkit dégg nga bind ba na muy rafet-rafet na muy jëfandikoo na ko yàlla bindee moo ko gën moo gën a rafet mm. maanaam doo ko gis mukk lu dul da ngay gis mbégte ci kanamam da ngay gis muuñ kanamam sallallahu alayhi wa sallam mu ne boo boo ko bëggee comparer ak fleur moo ko gën a nooy boo ko bëggee comparer ak weer moo ko gën a tedd boo ko bëggee comparer ak géej ndax la muy joxe moo ko gën a moom yonentoo ko gën a tedd moo ko gën a tabe boo ko bëggee comparer jamono ak ni bo jamono bëree yitte yonentu moo ëpp aspiration jamono ak képp ku nekk ci jamono sallallahu alayhi wa mu ne yonentu sallallahu alayhi soo ko séenee moo xam kenn la dégg nga moo xam mu nekk ci mbooloo moom rek ngay seen ci kaw da nga koy seen muy ñëw kenn la de waaye da ngay foog ne armé mm. ndax dara jaja ndax o ndax ndax jalaal ba ndax waqaar ba wegeel ba sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mu ne ka annama allulu almaknunu fi sadafin min maadinay mantiqin minhu wa mubtasimi su yonentu sallallahu alayhi wa sallam su waxee wala mu muuñ da ngay foog ne wurusu wurus wuñ bu ci sadaf mm. mooy génn ndax rafetaay ba dégg nga ak taar ba ak xeet gu neex gay génn ci moom sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama waxuma la yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama ci boppam waaye suuf sañ ko denc sax fenn melul ni moom mu ne laa tiiba yaadilu turban dama azumahu tuuba li muntashiqin minhu wa multazimi amul benn suuf ci àdduna mbaa ci àllaxira ci kaw mbaa ci suuf bu am mbaa mu jegee tolloog suuf si nga xam ne ñoo denc yaxi yonentu yàlla muhammad yu tedd ya mu ne koo xam ne dem nga bo foofu nga fóon ko baa nga baa nga laal ca dégg nga tuubaa li muntashiqin minhu wa multathimi ka ca ka ko fóon baa mu xalangu fa mu ne maa ko ko kooku daal texe ne àdduna ak àllaaxira mm. yal nañu yàlla yàlla may texe mm. may ñu mbaax ah, mm. may ñu jege yonent may ñu deferu ci àdduna ak ci àllaaxira hada wa sallallahu ala sayyidina muhammad addal hasa wa sara wa ramli yatbauha نجم السماء ونبات الأرض والمدى